déglu leen message bi c'est important. monsieur le ministre de la jeunesse merci beaucoup encore une fois. merci merci man sama wax bi du bëri camarade camarade wax bi du bëri benn message laa am mooy lancé le 14 le 15 ak le 16 jàpp ku yàq réalisation président Macky Sall wala nga dem daal kër jàmbur dinañ dem daal kër Ousmane Sonko dama ne buñ fi gisee benn élément perturbateur ci Dakar gi dinañ dem daal kër Ousmane Sonko ci kër góor gi on met en garde les forces de défense et de sécurité les forces de défense et de sécurité du Sénégal dama ne Prendre toute ma responsabilité en tant que jeunesse politique. dama bëgg lu wóor mooy que il faut qu'on se mobilise gars s'il vous plaît on s'écoute il faut qu'on se le micro n'est pas bon je dis il faut qu'on se mobilise bis bu ñu gisee ay échauffure responsable dinañu def tàngoor Ousmane Sonko dama bëgg presse bi déglu parce que dañuy wax c'est extrêmement important Sénégal c'est un sérieux il y a des institutions sérieuses personne au-dessus de la loi c'est important que Sénégalais yëpp xam